Bah Diakhaté ak Cheikh Tidiane ndaw dinañu taaxirlu ba ñetti fan ci weeru juin bi ñuy waaj a dugg ngir ñu xam seen ëllëg procureur nag daal dinay sàqu ñu tej leen juróom benn weeru kaso teg leen kenn ku nekk ci ñoom alamaan gu tollu ci ñaari fukki junni Bah ak imaam ñu ngi leen di topp ci mbirum offense au premier ministre waaye itam wasaare xibaar yu wérut fii ci Sénégal nag diffamation ak wasaare xibaar yu wérut dañ koy condamné mosul am ci Sénégal amul ci àdduna bi beneen bi ñu ne diffusion de fausses nouvelles ñu leen waaw lan la sama gaa yi génne lu nekkul dëgg Bah Diakhaté ne génne na yëpp lépp lu laal li mu waxoon yëpp teg na ko ci table ci amul lenn lu mu wax ci newul firnde baa ngi nii kon kay lii atte war foo na am waaye nag maître El Hadj Diouf jàpp ne teg loxo mi ñu teg loxo client yi nga xam ne jege nañu nguuru Macky Sall ba woon dafay nuru ak règlement de compte vous savez que le ministère public le procureur dépend de la. xam ngeen ne procureur ak ministère public am na ñoo xamante ne si euh, ñoom la ñu dépendre ci gouvernement bi daal la ñu dépendre kon tey ni ñuy acharné wu ci Bah Diakhaté Imam Ndao di ay militant APR loolu dafay nuro ak règlement de compte. Bah Diakhaté nag ak Imam ndaw di ay opposants yi nga xam ne jamono jii dañ leen teg loxo indi na ay coow ci biir réew mi ci biir opposition ñenn ñi jàpp arrestation yi léew dafa war a dàq ñu gën a privilégier débat démocratique ñiy sàmm ak ak yelleefu doomu aadama yi ku ci mel ni que Amnesty International moom di woo kilifa yi ñu bàyyi arrestation ñu mel ñu jàpp ne sax délit yu mel ni ay offense wala diffamation dañ ko fi war a dindi maanaam dépénaliser